jërë ngeen jëf alkaati yi réew mi jaar nañoo simil sàppo ubbi l'observateur mi ngi ñuy wax lu garaaw garaaw lu naroon a xew ci réew mi te waa sûreté urbaine gàntal ko ginnaaw force spéciale fi doon wax l'observateur nee nañu am na ñeneen ñu génnaat tudde seen bopp commando de Pastef l'observateur nañu yéenekaay bi di enquête moo joxe woon xibaar bi keroog di wax ne commissaire Bara Sankaré ak i gaayam di waa sûreté urbaine teg nañu loxo ay nit yu tuddee jàpp ñoom la ministre de l'intérieur doon wax yéenekaay bi nañu yàgg nañu leen a topp benn waay bu ñu naan M Kabade beneen waay bu tudd F ñu gën koo xam ci ñancoo ak keneen ku ñu naan S Sagna ab attentat la doon waajal ci réew mi jublu woon cee faagagal ay kilifa yu nekk ci réew mi bokk ci ñoom doyen des juges Omar Maham Diallo ak procureur de la République Abdou Karim Diop ki ñu naan Kaba moo jiite woon yëf nee nañu benn waay bu miin ay fetal i bomb ca états bokkoon am na ci it beneen waay bu ñu naan Mamadou moom ci fi PMFDC yi ca la bokkoon fi waa urbaine jaar ba jàpp leen ak bi ñu leen jàppee kenn ku ci nekk ci ñoom na mu feeñalee moroomam yéen kay bi l'observateur mi ngi ñu koy wax ba dañuy wax it ne ñaancoo ba ko waa police di jàpp ñoo ko fekk mu dajale ay cocktail molotov yaboon ko ci benn woto bëggoon ko rawali ji mbuur làqi ko fa ñi ko jàpp di waa urbaine sour soi mi ngi ñuy xamal wooluwaat Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko alxames jii di ñëw fanweeri fan ci yoru mars gis na ni bii pam ab jàmmarloo mënuta ñàkk ci seen diggante face à face diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko le ñoo ngi jëm ci semaine bu nar a tàng tetaar ci Ndakaaru ndax i manifestation yu bari yu ñu fiy nas Sud Quotidien ne ko ñoo ngi jëm ci semaine boo xam ne kenn tanewula ci lan moo nar a xew ci réew mi Ousmane Sonko ak Mame Mbaye yoon wooluwaat ci ab déclaration bu mu war a def Vox Populi di laaj moom Idrissa Seck ndax du sànni tàccu bi ko dese moom la bëgg a sànni tey ji lii ko ñu ne ko baa mu bëgg fee doxee tuur poñ si mburoog sow maanaam ab àndama Macky Sall mu jaare fi yamale ko fi ñu xëy yam ci xët mu njëkku laas gis ko fa moom Macky Sall ci biiri militangam yéene bi nañu keroog samedi la woon ci am ndaje mu secrétariat exécutif national APR doon def biir APR source fanweer ak benn yi mu def ci bopp réewum Sénégal loolee la doon màggal moo ki gaayam waaye ci ay dànkaa ay nappaate ki xuppaate jëm ci waay yeewu askan weeg seeni manifestation loolee la ñu gënoon a gis ca xew-xew ba bésub keroog bés bi la jour bind ne manifestation yi yeewu askan wi procès bu Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang Macky Sall wàllis la ci géew bi liise ko nañu boole ceekit di dànkaa fu képp ku bëgg a turbale dëkk bi direct news xëy ak ñun ci ay nit yoo xam ne li leen ñëpp xame woon moo di défendre Macky Sall te jamono ji kenn leen fenn yéenekaay bi nañu Abou Abel Thiam la Alioune Fall Souleymane Jules Diop El Sarr Abdoulatif Coulibaly ak Yakham Mbaye Thiam mbay néew yuñ doon suli ci armée di Kolda yi libération mi ngi ñuy xamal ñi ko doon def ak li tax ñu ko doon def yëral xët mu njëkk yéenekaay bi enquête ba ñu ca def wane na ne fukki fan ak juróom-benn ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars sulli nañu ci armée di Kolda yi ñetti néew benn waay bu ñu naan Amadou Diagne moo demoon ci beneen waay bu tudd Salif Balde ngir mu jàngal ko magie noire yéenekaay bi nañu dem ci armée sulli fa ay néew yu bees dafa bokkoon ca njàngale ma Seneinfo